impliquer des hommes publics mm -hmm. des hommes politiques des journalistes et cetera euh, loolu moo constitué aujourd'hui c'est une infime minorité nag ci magistrature mais moo constitué aujourd'hui la la victime mhm. euh, bi ñuy tapé quand on parle de la de la justice euh, tout à l'heure j'apprends que Euh, El Malick Ndiaye a recouvré la la mm-hmm. la liberté bàyyi nañu ko. tout à euh, Biram Souley Biram Souley mm-hmm. euh, bàyyi nañu ko. Mm-hmm. d' abord lan nga nan nga gisee ces ces emprisonnements massifs concernant nu mu tudd la direction. de c' est de c' est de l' man je pense que ku xaw a xam tuuti histoire politique du Sénégal mais li ma leen gis ñu leen koy def nii acharnement la ci loo xam ne jaru ko. ci loo xam ni dëkk bi dafa toll foo xam ni apaisement la laaj apaisement la laaj boo jëlee kaaw Birame Souleye maa ngi koy nuyu mais koo xam ne tooñ nga nga sukkuraam ne man maa tooñ nañ ma jéggal mën nañ ko bañ a jéggal mais ci contexte bi parce que justice tam contexte la contexte boo xam ne yaa ngi woote dialogue contexte boo xam ne da nga bëgg Sénégal dialogue ba kay jeex na da yaa ngi woote jàmm boobu disons yaa ngi woote jàmm mais contexte boobu mënoo jël koo xam ne juum na taxaw ne juum na nga jël ko dugal ko kaso loolu da ngay yokk tension mënoo leen singali Bassirou Diomaye lan la wax la clochardisation de la magistrature c' est un problème de français am na ñoo xam ne loolu bu ñu ko liiree ci français pour ñoom ça signifie rien tout image la mais je veux dire boo nekkee ci contexte ni da ngay wut jàmm parce que ci loolu lañ toll nag aussi ñu ci parce que tey. donc bu ñu nekkee ci contexte wut jàmm dañoo war a euh, signer. déedéet un blanc les hommes politiques. déedéet euh, xam nga am na ñoo ils peuvent faire ils peuvent commettre des crimes. déedéet may mun a dé may mun a bul foofu. ah non bul dugg ah, foofu. ils peuvent être accusés de détournement donc dañuy jël yëpp raxas au nom de de la paix des braves entre les hommes politiques. déedéet bul dugg foofu. ah man li may wax. Ah. mooy li ñuy woowe ay délits yoo xam ne si sujet à interprétation. quand on écrit la clochardisation de la magistrature am na noo koy liire nga ne baax na am na noo koy liire nga ne baaxul. am na noo koy liire nga ne sama voilà mais yu mel noonu bu ci tëj nit. non kenn waru ci tëj ça c'est des délits d'opinion man yooyu laa lay wax mais ku jël mais koo xam ne da nga génn ne da ngay def manifestation politique nga dem di toj ay magasin jàmbur kooku man ñaanuma pour ñu bàll bàlloowuma la homme politique boo xam ne yaa ngi def loo xam ne kenn santaanewu ko mais da ngay jaar ci justice comme ñëpp ni ñuy jaar ci justice. mais dama ne la boo tolloo ci wut jàmm doo nekk lu ñu la wax nga def ko xuloo yaa a énormément tey de doom politiques yoo xam ne dañuy dem kaso mais wax dëgg yàlla bu ñu la waxee ne lii la ñu def mais da nga naan lii war nañ ko mën a jaar bàyyi ci kur ci kur donc ngay wax ci violence yeeg yooyu loolu bokkul ak singali bi nga xam ne moom la ñu singali le mal fan la fan la nekk fan la ñu war a agir parce que pour le kaa El Malick euh, même ñun ñi nekkul enquêteur xam nañ ne ojo bi du El Malick mais loolu xam nga single mais on l'a on l'a on l'a pris. man ci li ma dégg xaw ma se vrai ou pas il paraît que ki wax sax. def audio bi sax. wax na ne moom moo euh, def audio bi. mais boo nekkee ci wutu jàmm kooku tu na pas besoin de l'amener à la prison ci ci ci cas à fan la problème bi nekk ba nga xam ne. Euh, avocat bi citoyens yi amuñu marge de manœuvre ils subissent. mais parce que subissent le, le dictat de la de la de la justice. l'état est trop fort l'état l'état est trop fort mooy li ñu doon wax le parquet il est trop fort. tey bu parc bi des parc bi de ne El Malick Ndiaye ci koo xam ne man ci liñ ma wax nee nañ ka wax wax ba sax nee na moom moo ko wax. donc non balaa ñuy yegg ca ka wax wax ba. mais acharnement euh, bi la audio bi ñu génne c'est pas la voix de c'est pas El Malick. exactement loolu laay wax. Ah. mais léegi lan moo tax ñu mën ko jël di ko yóbbu police mais mooy acharnement bi loolu tam il faut l'appeler par son nom am na ñoo xam ne teguwuñu ci yoon li ñuy def jaarul yoon dañuy dem kaso parce que nag dëkk bi ñu ñëpp ñoo ko moom ñun ñëpp ay citoyen lañ mais autant dafa am yoo xam ne boo ko gisee dafay teel sa xel mënoo boole mais c'est que c'est inédit loolu dafa état sax daf ko waroon jomb mënoo jël les 4 5 10 personnes yi nga xam ne ñooy diriger benn parti ku nekk nga wut loo ko taxal bu tugal ko kaso léegi fi mu ne nii génnaat nañ leen affaire fan lay mujjee xoolal li ñu def Aliou Sané. Aliou Sané bi ñu koy jàpp euh, affaire m maa ngi koy séen nekkuñu woon mais maa ngi koy séen fekk maa ngi sama oto di ñëw dafa wàcc ci otom rek taxaw ñu ñëw jël ko bi ñu ko yóbboo police tribunal vidéo bi avocat am génn moo ko sauvé mais démb ba léegi yaa ngi déggaat développement ñu ne procureur dafa def appel parce que dañ ko war a tëj mandat de dépôt mais c'est de l'acharnement lan na leen Aliou Sané def dara mais léegi yooyu boo koy def même bu dee da nga ci def ñaar wala ñett mais nit ñi dañuy gis ne état bi daf leen di noor. dafa commencer enlaidir le visage de notre démocratie parce que euh, emprisonnement yi bari na. parfois pour des motifs euh, très très très légers. exactement te loolu dafa bari xam nga fi mu ne nii sax ñu ngi wax Birame Souleye di wax euh, Malick Ndiaye parce que ñoom lañ xam mais y en a yoo xam ne tey ñu ngi tudd kaso te kenn waxu la lu ñu def encore une fois ñun on condamne la violence d'où qu'elle vienne. pour man un état doit être fort sur certaines choses un état ne doit pas reculer sur certaines choses xale bu fu génn di toj Auchan wala leneen dañ lay jël dugal